abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. jàmm seen bii di FTTV Sénégal kii di Imam Dramé yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmmale si ñuy wax ka ne parti bii di PASTEF ab parti bu njàggut a créé la amuñu expérience amul ko bokk ci ñoom bu mus a bokk ci appareil étatique si réew mi di Sénégal. te li ni mel dina sabab bis ñu leen falee daal di leen di dénk réew mi loolee dina nekk ab gàllankoor ci naka lañuy ñuy war a téye réewu Sénégal si li ni kii di Imam Dramé ne en réalité parti yi ñuy wax ko ne ñoom ñooy parti yu expérience ak nit ñuy wax ko ne ñoom ñooy ay homme d'état ci réew mii di Sénégal ne ñooñee lañ dénk réew mii di Sénégal depuis 1960 ba léegi te ñooñee ñoom ñoo sabab ñu ëpp ci jeune réewu Sénégal seen gént moom mooy ñu daal di génn réewu Sénégal ndax ñooñee nu ñu yàqee réewu Sénégal si nuñ ko gouverner depuis bañ leen ko dénkee ba léegi. ne ngir ab parti daal di am ay éléments yoo xam ne boo leen dénkee réew dinañ ko daal di mën a diriger comme il faut ne loolee dépendrul ci expérience di éléments yooyee di am ne lu jiitu ci politique moom mooy liñ dippee jub maanaam say loxo set ba buñ la jébbalee alalu askan wi nga bañ ko luubal. ne loole qualité bu jiitu bu ab politicien war a ngir mën a daal di jiite ab réew comme il faut ne am expérience wala ñàkk expérience loole amut benn relation ak jub te ne jub moom mooy premier gànnaay bu ab dirigeant war a gànnaayoo ngir li muy diriger daal di baax kàddu yu ni mel la kii di Imam Dramé daal di yëkkati daal di koy jëmale ci li ñu wax que ne parti bii di Pastef amul expérience te loole mun na koo gàllankoor. bu fekkee ne jël na nguur gi ci réew mi di Sénégal. abonnewul ci sunu seen FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di xibaar.